c'est président serein. Hmm. boo xam ne wax na avec sérénité. Hmm. ci question yu ñu ko laaj. Hmm. Euh, du mbir boo xam ne dafa mel ni euh, koo xam ne amaana lañ koy laaj na muy tontoo xaw na see tiit. donc répondre na avec voilà avec sérénité maanaam. waaye ah. il était il était free. sur la forme itam boo koy xool. Euh, defe naa ni question yi nga xam ne suñu confrère Alaaji Assane posé na ko ko ay question yu am solo la mhm. parce que question yooyu le Sénégalais yu bëri di laajte te amuñu si tontu euh, te dafa laal ay secteur d' activité yoo xam ne si wàllu politique ak si wàllu sociale bi dafa am solo mhm. ak si wàllu koom gi euh, waaye nag seg si see yi nag foofu amaana la ñuy gis président boo xam ne xam na rëcc rëcc ci wax la waaye du kàddu yoo xam ne amaana mhm. dañu ko doon xaar Euh, nu ñu koy waxee nag ñu war ko gën a mën a solal solal mbubu. Mm. am nga si yenn tontu yi nga xam ne amaana parce que tam c' est la première institution c' est la clé ah de voûte des institutions. Ah te moom c' est le président de tous les sénégalais. <laughs> ak foo mënti far ak foo mënti bokk. Eh. le président Macky Sall est le président du Sénégal et le président de tous les sénégalais. Eh, donc respect bu ñu naan il faut ñu jox ko institution bi te moom loi protéger ko te tey jii ñu tëj ay nit sur la base. de de de l'article lié à l'offense au chef de l'État kon boog euh, il faut quand même que Sénégalais bi tam bañ a bañ a sentir offense si moom bu dañ ko laajee dara mu war see a tontu euh, du ma yegg sax si si wax yi parce que tamit ñëpp xam nañ ko dégg nañ ko mm, mm. mais Euh, autant sur la sur la forme gis nañu un président serein autant si si si fond bi gis nañu ni am na ay réponses yoo xam ne daal joxe na ko te itam defe naa ni waroon nañ ko gën a meubler daal waaye <laughs> booy ñëw tam si daa toujours dans le fond. Uh-huh. booy xool question bi nga xam ne am na am na solo. dañu laaj ko mu jëm si troisième lu troisième troisième mu candidature am. Mm-hmm. Euh, defe naa ni euh, bu waxee ni loolu du si waxaat am na si sañ-sañ. Mm. waaye nag bu ne il maintient son ni oui ni waaw non non c'est ce nous avons retenu. Ah, mais dafa ne su si waree wax da si dafa am ñoo xam ñoom ah. la ko sekkal ñoom la siy njëkk waxal. bien man nag foofu dama naan je pas je pas pour. parce que. ce ne sont pas les membres de la paire et les militants de la paire et de Benno qui l'ont élu en Ce ne sont pas les militants les membres de Benno et de la paire qui l'ont réélu en 2019 sénégalais yee ko fal falaat ko. Hmm. donte le ñi nekk ci biir APR ak ñii ñi nekk ci biir Benno fal fal nañ ko waaye bu fekkoon ni euh, Mohamed militant APR dong. Hmm. ak militant Benno dong ñoo ko fal. Hmm. def naa ne du am 3 pour cent. <laughs> parce que quand même je pars du nombre. yi nga xam ne am nañ ko si li nga xam ne moo di militant boo xam ne il se réclame membre à part entière du parti ou de la coalition. Mm. donc le mandat foofu lay ñëwee ni le mandat moomu ko. Mm. le mandat appartient au la le mandat revient au peuple seul le peuple est souverain parce que moom ba muy bëggaat ñu faraat ko askan leen la dem rencontrer c'est c'est la rencontre d'un homme et de son peuple donc si fànn woowu moom il est parti. waxtaan ak Sénégal yi convaincre leen de la nécessité de le réélire pour un second mandat donc bu ñu ne réélire second mandat mandat bi damay jàpp ni moomu ko waaye tamit bu waxee ni euh, effectivement yoon dañuy fi liggéeyam si ku toj ku ku xawma ku kii yoon dina teg teg teg loxo sa kaw mhm. damay jàpp ni itam si fànn woowu euh, namuñ ko ko laajee waroon nañu laaj wa illaa moom mu tontu si ñi nga xam ne dañoo bokk si moom tey tooñ mhm. tooñ yoo xam ne Euh, moins pour moins que sax am na ñu nekk si kujje gi koo xam ne wax nañ ko wala ñu bind ko. tey jii ñi ñu tëj leen fii nga xam ne moo di prison. Uh-huh. te moom si biir kawam am na ñu wax lu ëpp. ëpp tuuru nag ba fa ëpp ba tuuru. Uh-huh. buñ ko bindul wax nañ ko réitérer leur propos ba pare di fëgg seen dënn te dara fekku leen si. Uh-huh. de ce point de vue de vue là également il faut quand même sur la sur le sur fond comme sur la forme. foofu tamit il y a véritablement quelques bémols. boo ñëwee si li nga xam ne. moom la wax si euh, domicile man Sonko bu ñuy pari barricade je dis exemple yu mu joxe dëggantaan du exemple yoo xam ne war méngoon ak réalité actuelle. parce que mu ne am na yeneen réew yi nga xam ne euh, ça se passe comme ça. non je euh, désolé mu jël exemple yooyu. en fait bu jëlee exemple c'était pas la bonne réponse. selon vous non non non non <laughs> sur le plan véritablement bu ko jàngatee rek. su le mm. plan de la forme. bien sûr sur le plan du fond. et le plan du contenu de son contenant. munoo joxe exemple lu asso du Capitole. aux États-Unis nga comparé ko avec le fait que benn citoyen sénégalais bu waree génn wuy ji wala bu waree génn ñu barricade ko barricade waale waa koñ ba noono def defe naa ne exemple boobu ah. du kii parce que itam la présence massive des forces de l'ordre quoi qu'on puisse dire mm. c'est une source de tension. très bien source de tension boobu nag moom moom fa ma doon xaar. surtout le contexte actuel comme comme lay waxee fànn boo xam ne dañ koy alléger. ba nga xam ne effectivement. kooku on va garantir ses droits. on va ah. garantir sa liberté yi nga xam ne constitution bi moo ko moo ko wax en sa qualité de citoyen sénégalais. bien sûr donc bari na mu laal. Euh, jàpp naa ne nag euh, comme ni la koy xeer si ah. si forme bi vraiment. toog naa seetaan naa il était à l'aise <laughs> moi-même qui regardais j'étais à l'aise en l'écoutant mais sur le sur le fond am na ay mbir bari yoo xam ne ah. buñ ko jàngatee dëggantaan sur le ah. plan de la communication et sur le plan de l'orientation de la démarche politique hmm. effectivement di nga mën a formuler ay très bien alors euh, Bamba yow itam euh, sa réaction par rapport ak euh, sortie bi bu le président de la République beaucoup de points ont été mais yow dama lay junj benn ak yi nga ciy teg ah bokk na ci dialogue bi nga xam ne laaj nañ ko ko mu ne voilà moom def na appel donc hmm. maintenant nag xam naa ne peut-être am na des quotidiens yi ne le président mi ngi raaye l'opposition bi wax ne maintenant ñoom dañoo war a wuy si et ku ñëwul xëy na ku gedd sa yaay <laughs> aye alors peut-être bokk na ci Ablaye Mbow yi mu bëggut a wax ay mots yi nga xam ne peut-être waroon na mën a ñàkk parce que institution bu toll ni moom la alors Déjà, euh, quelle lecture sur euh, cette grande interview quand même avec le chef de l'État qui a abordé pas mal de questions euh, nationales. En tout cas euh, comme ni ko Abdoulaye waxee man de quand j'ai suivi man aussi euh, li nga xamante ne mooy entretien exclusif bi man jàpp naa ne euh, ki nga xamante ne mooy le président Macky Sall moom à son niveau. moom tout est clair. xaw ma nag ba xam moom ñi muy opposé wu ak ñi muy langue ñi mu bokk langue politique est-ce que ñoom leer na seen bopp waaye moom. fa mu jëm. Hmm. ak la mu bëgg. y' a pas de péril déedéet déedéet. tout est tout est net tout est nickel niveau. soo koy déglu muy wax. di faram fàccee. nga xamante ne Macky Sall moom lépp leer na si ay plan d' action ya mu teg. pour ñu jëm ci li nga xam mooy échéance yi ñu jëm. Hmm. moom dèjà li nga xamante ne mooy côté am leer na wax ji nag mooy. réeróo dafa am parce que léerul si opposition bi mooy li nga wax sànq réeróo dafa am parce que opposition bi la bëgg moom mu faram fàcce ko ba léegi moom da see faram fàcce loolu am na ñetti point yu ma gën a jàpp benn ba mooy hmm. euh, si li nga xamante dafa ne détenu politique dafa ne moom gëmul ne fii am na ay détenu politique maanaam président Macky Sall moom il est dans quel monde il est dans quel pays bu toogee ne détenu politique amul kon nan lay comprendre Fadilou Keita ba ñu jàpp lan la ko mën a comprendre nan lañ mën a comprendre Diomaye Faye bi ñu jàpp la ko mën a comprendre nan la la mën a comprendre parce ne moom xam nga ne li muy def yëpp mooy ay activité politique la mm. te ñi mën a limal activité politique parce que kii di Fadilou Keita moom moo géré li nga xam ne mooy nemmeeku nekk tur bu passif. bien sûr ki nga xamante mooy Diomaye Faye mooy ki nga xamante ne mooy. Euh, secrétaire général bu passif. ki nga xamante mooy euh, Bilal Diatta maire Keur Massar mais membre actif de passif. donc kon moom loolu nan la ko mën a expliquer te ñett yoo laal limal mais am na ñeneen ñu mën a lim. mën a lim léegi nag bu ko kii moom déggul ne moom euh, am na si dëkk bi kon cela veut dire que dialogue ba muy wootee nga xamante mooy condition mooy bari ñoo toog di dialogue ak yow suñu détourné ñu ñu jàppee ñun détourné politique foog nga bàyyi moom mën déetun politique amul ko réew am na ko dégg-dégg bi baaxul mooy loolu la ki nga xamante ne mooy euh, Alioune Tine wax sànq ne bu fekkee ne président Macky Sall xamul ne déetun politique fii dëkk bi kon moom lan la jàpp léegi dialogue boobu nag Macky Sall nee naa la moom si kotom leer na mais opposition est-ce que moom moom na benn dialogue lay dialogué benn point lay dialogué mooy wàllu élection yi ñi si mën a dem ak ñi si mënul dem d'accord ñi léegi ne ñii di opposition ñoom nañ ko xamal ne ko dialogue boobu ñu bëgg jaloog ak yow mooy yow première chose mooy waxal na yow bokkoo si <laughs> Macky Sall tontu la ne leen dialogue bii may dialogue ak yéen mooy ñi nga xam ne ñoo am ay problème judiciaire dem na ba lim ne kii di xalifa Sall moom peut-être mi ngi xaar li nga xamante ne mooy mm. wàllum am na si kii di Karim Wade maa ngi dégg noonu la ko président waxee maa ngi dégg sax moom mu ne. wala ñoom ñu ne ay révision lañu bëgg. waaye na ku gedd. c' est ay loolu président Macky Sall moo ko wax ku soo demee nag ba ne ku gedd si ay ay yaa ngi dugal ñi nga. xam ne loolu dañoo raayee l'opposition rek Macky Sall comme léeg-léeg puy puy ni ko ni ko sëñ Sall di di sàngi. waaw di dóoree benn ay ay <laughs> Mohamed mais léeg-léeg loolu dafa baax ci. waaw ci langue bi forme de communication. mais mais décrispé même bu dee sax Abdoulaye Mbow. yow yaa baax rek même bu dee Abdoulaye Mbow nee na bon institution bu mu toll waroon nañ cee mën a mais gis nga euh, Mohamed. Euh. j'aime bien euh, ni ngay réagir j'aime bien mais Macky Sall mooy koo xamante ne. la muy foowee mooy nekkaale dëggam <laughs> il faut ñu xam loolu. Macky Sall la muy foowee fii la fi foo ne. Mm. dafay réduire à sa simple expression. gars yi ne ne nekk na si. Mm-hmm. fii la foowee ne du ma ne oui du ma ne non waxoon Babacar Fall ni question bi yaa ma koy posé daaw posé nga a ko ren ba léegi Macky Sall addu si. Mm-hmm. fii lay foowee. li nga xamante ne mooy nee na dama leen wan rek sax si défilé bi militaire bi que ñun am nañ sécurité bu doy te loolu junj la rek. te loolu muy café loolu mooy dëgg si moom kon cela veut dire que mooy ñi nga xamante ñoom ñoom ay jafe pour dem si élection kaay leen ñuy dialogue waaye man bokkuma si. très bien dafa bëgg ne dialogue boobu bu yéen këcc leen ma si man bokkuma si li ngeen di dialogué ay jafe-jafe maanaam nga xamante ne yoon ne tee ñu dem ñu ñu xool nan lañ koy fexee négocier te négocier boobu bés bu ñu ko defee moom mooy teg condition yi xamal leen ne ni lañ ko defee ni lañ ko def ay ndigg sërëx yu bëri man nga si biir léegi nag beneen point bi mooy waaw dafa ne moom dinañ ko fekk si lu ne mais démocratie Sénégal du ko mës a salfaañee mhm. xam nga Macky Sall dafa doon xaas moom mu ne sama kàddu daaw mooy nekk sama kàddu ren suma kàddu moo koy sàmm saa su ne te mu méngoog jëf ji te Macky Sall sur communication il communique bien nee na dafa ne li nga xamante mooy démocratie Sénégal du ma ko salfaañee mhm. waa démocratie Sénégal mooy la mooy démocratie boo xamante ne c' est géré par la constitution. Mhm. mooy démocratie boo xamante ne c' est géré par le conseil constitutionnel. ku bëgg a dem présenté wu présenté wu. exactement ku am lu muy wax ci réew mi joxe xalaatam. léegi nag ak yeneen ak yeneen. parce que cela veut dire que c' est un mooy Macky Sall boo xamante ne pare na pour wax ne. Mhm. man du man maay fii nekk naan du ma nekk candidat wala damay nekk candidat waaye ñi nga xamante ñooy saytu. man en tant que citoyen sénégalais am naa droit déposer di xaar ñoom ba xam ñoom dañuy valider suma candidat suñ ko valider sur le plan de la démocratie c'est accordé suñ ko valider sur le plan de la démocratie damay retiré wu génn bàyyi ñeneen ñu làng waaw kooku nag wax na boppam ba pare. parce que kooku demee ba wax ne conseil conseil dañ koy valider et ñu wax ne affaire bi nekkatul question de constitution ñu wax ne affaire troisième mandat bu Macky Sall ce n'est plus une question mm. a déjà ne mooy fa mu jëm. léegi nag wax ji mooy. ki doon wax keroog ban Macky Sall mooy wax. parce que parfois day day pêle-mêle day mélanger Macky de l'APR Macky boo xam ne day politique dëggantaan. mais c'est le président de la République ak Macky bu président mm. dama ne parfois griffes yooyu ngay dégg mooy yi nga wax ne sànq fi dugal ay griffes pour mën a wax yooyu mooy Macky Sall bu APR politicien bi mooy wax. Mm. alors que ñun ki gën a bëgg mooy ki nga xamante ne mooy président de la République mu wax mooy la mu apaiser la tension. très bien apaiser la tension comment mooy am na ñoo xamante ne jàpp nañ ne parce que ñu ne ñu analyser rek am na ñoo xam ñoo jàpp ne Macky Sall déposer sa candidature mën na andi tension si dëkk bi am na ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne boo leen tee ne Kanda jaay doole si siy xeeñ. d'accord waaw léegi loolu loolu yëpp nag. Uh-huh. dafa la dialogue. mais dialogue bi nag doo wax ne dialogue bi nag nii lay demee wala yéen ñi bëgg ñëw ñëw leen wala ku bu gedd sa yaay a d'accord waaye li ñu war a wax mooy dialogue carrément pour l'intérêt national. Mm-hmm. pour li nga xamante ne mooy stabiliser. réew mi ku nekk gis sa bopp ku nekk gis si sa bopp très bien merci beaucoup Bamba alors Ibrahima Pouye itam certainement déglu nga le président de la République euh, a travers euh, entretien bi mu def aborder ah beaucoup de sujets maa ngi wax léegi Ablaye Mbow. des sujets yi nga xam ne souvent sax daaw ko ci doon dégg <laughs> daaw ñu ko doon dégg te yi préoccuper les sénégalais donc euh, maintenant nag euh, à notre niveau ndax réponse yi euh, voilà ah, doy nañu am doy ñu bëgg nañu quand même nga jàngatal ñu li nga xamante ni moo di entretien bi mu def ak surtout yan tomb nga jàpp ne le président de la République àdduna ci nga li nga wax naa il a touché beaucoup de point hmm. pour dire que le président Macky Sall a été invité mmh. à RFM en tant que président de la République du Sénégal mais pas en tant que président Benno ni président APR c'est le président c'est l'institution qui a été invi à RFM mmh. et tous les points yi nga xamante ne abordé na ko ak El Hadj Assane Gueye c'est des points qui touchent la République pas Benno ni APR Mm. amu ci benn point boo xam ne ça a touché directement l'APR donc c'est des questions qui, qui sont à la République à l'institution et à la vision du président par rapport ak li fi ne ak les perspectives mm. man fi may njëkkee rek mooy Ansoumana Sané xaw ma mooy kii jiite Ansoumana Dione Ansoumana Dione mm-hmm. laay njëkk félicité mm-hmm. ba muy commencé mouvement wam pour taxaw ñi seen xel yi tàggu seen sago mm-hmm. wéetoon na ci su mu def ko combat boo xam ne ay at la moo dem ba entamé combat centre bu Kaolack bi nga xam ne fañ doon dalal ñu seen xel yi tàggook ñoom bu koy si xeex di ko si xeex ba yàlla dogal mu am ci satisfaction mm-hmm. dem ba président de la république tout de sa tour parmi dix-huit millions de sénégalais maa ngi félicité Ansoumana Dione mi nga xam ne moo jiite association bi yor ñi nga xam ne dañoo tàggoo seen sago centre bi nga xam ne moom la doon xeex jébbal na leen ko subvention 500 millions bi ñu doon demandé pour accompagner centre bi ak ñu tàggoog seen sago danañ ko liggéey si nu mu gën a gaaw fii ak troisième trimestre prochain trimestre bi ba pare di ko lancer appel ko mu gën a liggéey ak ministre de la santé. Mm-hmm. un acte social citoyen. Mm-hmm. c' est pour dire que dans l' ensemble il a touché les inégalités sociales ci biir débat parce que réew mi nekk na réew moom ne réewu social la et 40 pour cent du budget bu ret 43 pour cent yi ci social soo duggee ci cadre sécurité force de défense de sécurité wax na ci affaire 4 avril bi défilé militaire bi. Mhm. arsenal bi nga xam ne ma la arsenal xam nga bu ñuy défilé benn parti la ñuy génnee. léegi ñu jot a wane ci défilé bi rek bu doon sénégalais yi kese tax mu génnee ko. Mhm. ëpp na ci sénégalais yi waxtuma la ne ci caserne yi te génn gut fépp fu défilé am ci àdduna bi armée bu ne ci àdduna bi da ngay génnee say arme di ko won say voisin di ko woon monde entier ne am nañu matuwaay bi am nañu doole bi pour seen at seen i attaque bi ñëw pare na mais les armes yi ñu exposé ci défilé bi c'était pas c'est pas pour les sénégalais c'est loin mhm. d'être pour les sénégalais nous sommes dans un dans une frontière la sous-région avec le terrorisme une ceinture de feu comme on a toujours l'habitude de le dire war na ñu produir gaz di ko jaay ren war nañoo commercialiser pétrole donc il faut qu'on se sécurise d'abord d'accord foofu dalal na xelu Sénégalais yi. wax na ci cadre justice. neena na jotagul benn dossier boo xam ne dossier wu justice bu tegu ci table parce que nee na dossier nekk ci tribunal. ci justice du ma ci wax duma ci def. yoonam da cee newul sax. Ah. là il a montré la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la et le judiciaire. Mm-hmm. que jotuma benn dossier bu tegu suma table. bu wax ci wàllum justice. boo xam ne sori na. dañ ko koy nangul aussi parce que laa je dis que l'éloquence de la communication la pertinence des idées de son débat posé bi am ci moom attends les Sénégalais l'ont écouté mhm. catholiquement am na ñoom na il les a séduits am na ñoom ne il les a rassurés il a rassuré le peuple sénégalais et d'autant plus que tout le temps la presse sénégalaise ak journaliste dañuy faral di wax na le président de la république saa yu bëggee prononcé wu dee dem ci tubaab yi mais cette fois-ci il s'est prononcé à travers une radio nationale de la place où li nga xam ne télé tubaab bi lañ ko doon critiquer tey fekk si na léegi la presse nationale ci la ma jàpp benn jéego bu mu avancé jëm si ñoom jëm si ñoom parce que looloo ko war lu mu gën a jege askanam lu mu gën a jege rassurer askanam sur tous les leviers nag da ko war a utiliser et que nag doomu aadama la il sait que tôt ou tard il va quitter man par rapport au troisième mandat bi ñuy wax man j'ai toujours l'intime conviction que ne le président ne se prononcera jamais sur ça. Mm-hmm. amul bu buñ ko munti programme damay naan du si wax parce que moment bi nga xam ne toll nañ ko ci réew mi stabilité réew mi lu mu ko mun a lijjanti dina ko lijjanti te jàpp na ne parce que bu joxe position ci troisième mandat bi mhm. stabilité mun na ñàkk su fekkee dafa wax ci loo xam ne dëppoo nag li Sénégalais yi doon xaar doon xaar mhm. kon il ne va pas prendre le risque de se prononcer mhm. sur le troisième mandat nii wii nii non bi dugal na ko ba mu dugg tey bu nee nii wii bu nee wii je serai candidat mais leer na ko ne stabilité du amati. et beneen Sénégal di ñuy gisal. bu nee non leer na ko la mu wax ci biir partem ak ci biir gouvernement am mais les cartes seront complètement compliquées parce que ci biir gouvernement am ak ci biir après benn bokk yaakaar am na si ay kilifam yoo xam ne moo leen jox décret ils ont les moyens ils sont prêts toog nañ bu ne kekk di xaar. loolu la position du président de la république. d'accord bu ne noo dew ma rek. carte gi jàpp affaire waay dëkk bi waay affaire ak bennoo tàkk. dëkk bi nekk si jàmm. d'accord parce que la choc des ambitions bi ci biir alliance pour la république. Mm-hmm. et que moom mu xam ne am na ñoom ne signal na leen décret ñii jox na leen ay nomination xam na ne ñu ngi nekk ci biir partem di bénéficier ay privilèges am à travers nomination ñu ko. ñu ngi koy xeex ci suuf. mais dafa nekk un fin stratégie politique jàpp njàmburam mhm. donc tey suñu xoolee sur tous les paramètres de son discours mais da ngay gis ne tey mais nit nag des fois day baax nga ne ko wax dëgg yàlla nangul nañ la sant ne veut pas dire que lépp loo xam ne def na ko baax na mais il faut aussi nag sept que il a fait des choses positives à travers surtout le bilan matériel bi ñuy faral di waxtaanee chaque jour. bilan bi moom ñëw na ci sax nag. boo boo laal ko. ñëw na ci bu baax les forages. Mhm. les pistes de production. le nombre de kilomètres de route. et cetera et non mais dañ ko duñ ko bañ. dañ koy wax. Mhm. comme ni ñuy waxee le manquement dans son bilan immatériel. ci code de justice. ci côté dund bu cher bi nga xam ne mu ngi ko siy jéem a def lu mu mën ak lu mu mënul mais loolu aussi bu ñu waxee le pour rek hmm. il faut aussi dire le contre parce que loolu mooy démocratie démocratie bi mu wax nag aussi ah. mais la démocratie sénégalaise se repose hmm. ci constitution Sénégal hmm. mais démocratie ci biir constitution Sénégal la nekk parce que constitution Sénégal alinéa 1 ba nombre de paragraphes ya moom la ñuy doxal bi donc mënut a ñàkk wax démocratie au Sénégal te tuddul la constitution du Sénégal. effectivement donc li koy gën a renforcer nag mooy la stabilité créer une paix sociale essayer de trouver des candidats yi permettre suba une multitude de candidats. amnistie bi li mu ci wax du lu bett nit ñi. Uh-huh. wax na ko waxaat ko. très bien Karim Wade ak waa PDS seen position ñëpp gis nañ ko dégg nañ ko dañ leen koy nangul mais Khalifa Sall. mais moom mu ngi kon nekk ci terrain bi. d' accord PDS ñu ngi xaar ñu révision des kii mais teew ñu ngi ci terrain bi. donc dans dans tous les sens. li ma jàpp rek mooy c' un président qui se soucie de sa population c' est un président qui fait le maximum possible pour que le pays bi muy jiite. nekk dans une stabilité sociale. Mmh. oui euh, d' abord damay fàttali benn mbir. Mmh. Euh, président dafa ne baal naa ñëpp. baalu na ba pare ne baal naa ñëpp. Mmh. conséquence Euh, prise de position boobu Mohamed hmm. man damay jàpp ni dès l'instant que président baal na ñëpp ñuy jàpp ñëpp pour offense au chef de kon war na leen mën a bàyyi ñi euh, euh, bi lu ma jàpp hmm. mooy war nañu mën a bàyyi ñi nga xam ne jàpp nañ leen pour des délits liés à à l'offense au chef de mën na ko donte le procureur xam nañu yoon ni muy doxale ak procureur ni muy autosaisir si li nga xam moo jëm si offense au chef de l'État boo ñëwee si wàllu séparation des pouvoirs hmm. dëgg la séparation du pouvoir am na waaye tamit xam nga dafa nekk une séparation euh, à demi-teinte mm. parce que itam ñëpp xam nañu ni exécutif ñàkkuta am loxo si doxul doxu doxilinu. doxilinu yoon ah. lu tax euh, je donne un exemple banal en passant. par exemple bu muy recevoir rappeurs yi. Ah. dañ ko waxee kaaw Karim Xrum Xax. Mhm. dafa ne wax leen ay avocat ñu def demande de liberté provisoire. daa ko appuyé ko moo ko mi ngi si table justice. <laughs> moo ko waxoon de première institution kon boog amu si woon amu si woon wàll. Ah, parce que il incarne li nga xam ne mooy. Euh, le chef suprême de l' exécutif ah, ah. donc